الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي الكلمات الطيبات التي قالها رجال طيبون وناس طيبون إلى قوم أيضا فيهم أمل فيهم رجاء أن يحقق الله فيهم ما تظنون من الظن الحسن كما ذكرتم في حديثكم وأشكر الشيخ منى في حديثه حديث فيه آه، تصرف مع الحياة كيفما كانت فيه تقلب مع الحياة بتقلباتها المتعددة والمتنوعة فيه عقل يساير هذا التقلب ويساير هذه الوجوه التي تواجهنا بها الدنيا ويعرف أن يستخلص منها درسا يفيد بهذه الدروس غيره جزاكم الله خيرا وزادكم فتحا ñaari ñaari قصة آه، laa leen bëgg a nettali benn bi maa ngi ko شاعر ci shaa'ir étudiant bi def poème bi ah bu rafet bu kawe bii dëgg-dëgg euh, benn shaa'ir dafa ñëw ci baay naari gànnaar def ci moom benn woy boo xam ne lu nekk ci biir ay moromi naari gànnaaram ay surafaaw ñu ngi toog bi waa ji waxee xasida bi ba pare tegee ko baay e kenn ci shérif ne eh woykat yi ñoom dañuy fen rek keneen kii ne eh woy de balaa neex rek bëri ay fen nga noonu lañ gisee wax boobu ñoom bàyyi ne bàyyi ne dafa am benn woykat ñëw ci benn buur di ko tagg lu nekk ci lu baax rek taggee yenn ko buur bi bi mu paree buur bi ne lu ngeen xam ci li waa ji wax ñu ne koy eh, dafay wax rek mu ne déedéet waxul rek kii tànn na li gën a baax ci moom may ma ko tànn na li gën a rafet ci moom may ma ko tànn na jikko yi gën a kawe ci moom may ma ko te man awma lu ma ko delloo waaye yàlla mi mu koy mi tax mu may ma ko ñu mu waxee yàlla la ko yàlla delloo yàlla na ko yàlla delloo ci sa jëf yàlla na ko yàlla delloo ci sa yaakaar yàlla na ko yàlla delloo ci sa yëkkatiku yàlla na ko yàlla delloo ci bëgg euh, bëgg-bëgg yi nga am yépp ci sa bopp ak sa diine ak sa réew yàlla la yàlla won foofu li nga bëgg yëpp ak ni ko bëggee beneen xista bi mooy sëñ munaa warlu nañu fi yu bari ñaan na yu bari ne yàlla ñu ko yàlla may fàttewul kenn fàttewul sax ñi juddoowul mu ngi bëgg bu ñu juddoo fekk fi lu baax fàttewul loolu yëpp dafa benn euh, sëriñ bu mag kalifa diine fu am xam-xam ñun ñëpp xamee ko mu mu bokk ak benn kàccoor tur ñoo bokk benn tur mook benn kàccoor ñoo bokk tur ñu am benn prince boo xam ne guddi gu jot dafay dajale ay xaritam ah, ñuy def seen yëfi buur rek ca rax ca bax ca mu oob bëkk nekk ne ko demal oowal ma waa yooyu mu dem jaawale oo borom xam-xam bi borom xam-xam bi ñëw fekk jotaay bu seen jotaay yu neex yooyu bi ñu ko gisee gaaw ni tey mooy leen nii bàyyi leen bàyyi leen bàyyi leen toog leen mbubb yi ngeen sol jox leen ma ma sol ñu dindi jox ko mais sottil leen ba ma naan comme ni ngeen di naanee ñu sottil ko mu naan di mu naanee ba pare dal di ne buur bi prince bi lii ma tey laa ko mos def ndax yow yaa tax ma def ko waaye nag am na lu ma lay ñaan man tamit suma doom bu mag bu góor dafa bugg doomi buur bu jigéen bi mu ne ko may naa ko mu ne ko man awma dara mbay rek la yaakaar te awma tool te am na suuf si nekk fële ñu ne buur bee ko moom mu ne ko may naa la ko mu ne ko ah boo ma mayee buur tool ba mel noonu man kenn mënuma koo bay dama bëgg nga may ma fukki jaam mu ne ko may naa la jaam wax ko ba muy fukki mbir yooyu yëpp waa ji ne ko may naa la ko may naa la ko soo suba sa mu dem ca buur ba ne ko ah am na lu xew de mu ne ko lu xew mu ne ko nangam ak nangam mu ne ko li nga wax yëpp ijaaza naa ko li nga wax yëpp ijaazal naa la ko wéyal naa la ko yooyu tamit ijaaza baa ngoog wéy ak ñaan yëpp a ngoog ñu ngi yaakaar ba lañ fee jógee tas seeg euh, mbooloo mu tedd yi nga xam ne waxtu wu nekk yëngatu doomu aadama dafay ànd ak joxe ay dars yoo xam ne dars yu bees la ci àddinaam bii nga xam ne moo koy dund ngir tontu ay question yoo xam ne yàgg naa ànd ak doomu aadama te ba léegi mënu koo tontu te mu ngi koy tontu bër bu sekital d'où où pourquoi ah mooy laaj boo xam ne doomu aadama yàgg na koo laaj te kenn tontuwu ko te mu ngi tontu boppam bër bu set ah mu ngi tontu boppam bër bu set ndax li muy def yépp tontu question boobu la ndaxlan ndax doom adam fu mu bàyyi ko ci dund la bàyyi ko ci dund la bàyyi ko dund bobu mu bàyyi ko mu ngoy koy dund fii ci donc bon première tontu du ci min min allah wa min hayati allah jitu wa a'ishu ala hadhihi al ard donc bon xamna fu mu bàyyi ko ci dund bu sama dund ci dund bobu la bàyyi ko dund bobu ci la nek diko ko dund pourquoi pour le li ñu def yëpp pour jotay yi ci pourquoi boobu lay tontu pourquoi ndax pourquoi bi mooy lan jotaay bi lu ko waral mooy ñun ñëpp dañuy gëstu pour xam ñun ñëpp dañuy gëstu pour yokku ñun ñëpp fi ñu toll nii doyuñu dañoo bëgg a jëmaat ca kanam ah moo tax waxtu wu nekk doomu aadamaa ngi yëngatu pour demaat ca kanam doomu aadamaa ngi yëngatu pour dolleeku doomu aadamaa ngi euh, euh, yëngatu pour gën a xam ndax xam-xam mooy bunt bi nga xam ne

ci yow benn xaaj la boo xam ne dañ ko bind comme niñ liñ la bindee boo yaakaaree mu indil la benn tontu ci benn question dëgg-dëgg yàlla may na ko lu bëree bëree bëri mais am na yoo xam ne jarul laaj amut du question du dara parce que mi ngi noonu ñu ngi nii nekk nañ fi fu ñu bàyyeekoo ci dund boo xam ne du jeex ci lañ bàyyeekoo nar a yow dund fii dund boo xam ne dund bu gàtt la dund bu gàtt boobu pour quoi mooy pour loolu ngeen di def ngeen def loolu ngeen di def ngeen def bëri na lool te wuute am na ñuy def loo xam ne luy yokk doomu aadama rek ci lañuy nekk ah yàlla tàggatal na leen loolu ñu nekk ci seen dund yëpp yonent ci wali yu yàlla yi borom xam-xam yu sell yi yëpp boo demee seen itte ci seen àddina mooy doomu aadama nu muy yokkoo doomu aadama nu muy jëriñoo doomu am gi doomu aadama nu muy jëriñoo màggaayam ci yàlla doomu aadama nu muy jëriñoo li nga xam ne yàlla defal na ko ko yépp may ko ko nu ko doomu aadama di jëriñoo ah boo demee loolu mooy école boo xam ne ubbi nañ ko muy école yoo xam ne nag du jeex du xaaj fees dell ak xam-xam borom xam-xam yaa ngi fi nekk waxtu wu nekk ñu ne nii la nii la nii la nii la ndax loolu moo lay won ne da nga bàyyi ko ci dund boo xam ne moomoo ko di dund ñu wax leen ne liggéeyal ñu wax leen ne liggéeyal jox nañ la nag mboolem katan bo xamne mom ngay liggéeyee jox nañ la xel jox nañ la doole jox nañ la pexe jox nañ la lépp lo xamne soxla nga ko pour liggéey bobu yàlla sante la ne la liggéey ko fi ci adina lépp lo xamne ne liggéey boobu laaj nako pour nga def ko ci yàlla may na la ko may na la xel may na la moma bu ndaw bo dund ci adina bi pour essayer may na la katan may na la pexe may na la lu bare bare bare bari yo xamne def ko dendale ak lolou mu ra sante نلا استعمركم واستعمركم فيها jaalakum xalaafa fil ardi wastaamarakum fiha maa leen def ngeen utuma ci kaw suuf si ba pare sant leen ngeen dundal suuf si ngeen dundal suuf si man zal lazi yuqridullaha qardan hasanan mun naa wax na ko mu ne yàlla wax ne lebal leen bu ngeen ma lebalee dinaa leen fay waaye bu ngeen may lebal nag na ngeen rafetal lebel gi ah bu leen lebal pour di ma chantage da ngeen may lebal rek ah lebal goo xam ne lebal gu rafet la après bu ma leen di fay nag di ngeen xam ne ki ngeen lebaloon mën naa fay ah pourquoi doomu aadama lu lu mu am pour lebal yàlla mais daf lay woon ne yàlla doomu aadama àgg na ci yàlla foo xam ne dafa mel ni yàlla daf koo def nawle ah di ko wax lebal ma mm, boo ma meree ma mere la boo ma saagaa ma saaga la euh, tout ça la loolu yëpp yàlla dafa def doomu aadama nawle teral ko teraanga joo xam ne lu nekk doomu aadama soxla na ko ci àddinaam dana fekk ne yàlla may na ko ko mayin boo xam ne mais doomu aadama nu ngi koy utiliser pour jëriñoo ko foofu la duruus yi nga xam ne moom la doomu adama yëpp war a nekk di ci lay nekk sax di jàng philosophie yaa ngi fii di wax euh, borom xam-xam yaa ngi fii di wax fuqahaaw yaa ngi fii di wax ñoom ñëpp a ngi nekk di wax waaye ñoom ñëpp seen wax munul soxla bi nga xam ne soxla na ko ci xam-xam dañuy wax ak ñoom a ñoom ñoom rek ba étape boobu foofu la toll yeneen doomu aadama ñëw yokkat ci yeneen xam-xam yoo xam ne dafa mel ni du xam-xamu démb bi mais benn xam-xam bi rek la waaye kulla yawmin huwa fii sha'nin moo lay jàngal ne man yàlla la léegi léegi léegi la ah te da dara màggatut ci man lu bees rek moo tax lu démb loolu nga foog ne màggat na lu lu démb loolu moo bees parce que doomu aadama jooju fi nekkoon ci aadama ba léegi ah borom bopp bi borom taxawaay bi borom nopp yi borom bët yi doomu aadama boobu rek moo fi nekk ba léegi ah suuf soosu doomu aadama yi nekkoon fi di liggéey asamaan su tiim leen doomu aadama yooyu ñoo fi nekk ba léegi ah waaye doomu aadama yooyu fa nekkoon ci jamono booba bokkut ak doomu aadama yi nga xam ne ñëw nañ seen gannaaw puus dund mu àgg foo xam ne àggu ko seen jamono bañ si ci jamono bi nga xam ne doomu adama puus na dund ba mu àgg foo xam ne ñoom ci seen bopp loolu génn na seen xel yi ndax doomu aadama ah, ah, dem àgg na ci weer wi àgg na mariix àgg na àgg na àgg na yëpp yàlla ubbil na ko ko ci jàkkaarloo ak xam ak ak ak laal ak gis loolu yëpp boo demee yàlla may na ko doomu aadama doomu aadama àgg na ci ndax lan yàlla benn nit rek la bind mooy aadama lépp loo xam ne nag na ci aadama yàlla teral na ko nam terale woon aadama wa allama adama al asmaa kullaha man yàlla jàngal adama aadama lépp loo xam ne war na koo war a xam ci àddina doomu aadama boobu yàlla doon jàngal mooy doomu aadama bii toog ni tey ci ron mbaar mi yàlla di jàngal ba léegi yàlla di génne ci moom ba léegi ay xikma ak ay xam-xam yoo xam ne bu ñu ko déggee dañ naan ñu koy door a dégg tey ah comme xam-xam yi yaa am ay xikma yu jaar fii porte parole wax ko amna ay hikma yu jaar fi borom dëkk bi wax ko loolu yeb lu muy wone da fay wone dom adam man liko yàlla sante ne ko dundalal na suuf si jox na la ay pexay yoo koy dundalee am na ñoo sànkuñ ko ñu ci nekk bëgg dundal sen sen sen loolu nga xamné yàlla sante na len ko dama dama ma moy moy moy koku yàlla wax ne ko wa allama aadama al asma kullaha ثم عرضهم على الملائكه gannaaw boo xamee ne jàngal na doomu aadama dars bu njëkk bi mu ko njëkk a jàngal nag xam nga professeur bu mat sëkk bu jàngalee élève dina seet ndax élève bi dégg na wala déet bu déggee ba pare nu mu koy toxalee ci ñeneen ah mu ne am bi hum bi asmaa'il malaaka jàngal leen aadama jàngal leen moo tax rolu doomu aadama ci kaw suuf si jàng ak jàng rek la ah li ci des yëpp mi ngi bàyyi ko ci njàng ak jàngale mi rek benn waaye dina waaw sëñ Maahi fu xel nekk ma ne ko mi ngi nii yi ngay gis ak yëpp xel la ah oto yeeg ah eh, yooyu ngay gis loolu mooy xel parce que yëpp xel moo fi indi ah njàng ak xel moo ko fi indi ah, xel nëbbatu ah nii nii ngay jàkkaarloog moom fëtee yi nangam yi nangam yi nangam yi loolu yëpp boo gisee da gis ne ci xel la bàyyee ko xel mu rafet xel mu góorgóorlu xel mu mën a liggéey waaye bu fekkee da ngaa bëgg a jël xel def ko foo xam ne dafa sore sori dafay soreeg yow bu ko defee nga nekk fi di gëstu di xool oh philosophie di xel fu mu xel benn picc bu naaw du la tiim la xel benn euh, benn euh, sa sa àndandoo la boo xam ne boo tëddee mu tëdd boo nelaw oh,

watandikul doomu aadama lo xamne daf koy gaaj nga gis xel mu teural lolu ne nit ñi bu ñuy rombante ci circulation ni lañ ko wara doxalé ni lañ ko wara andé ci seen biir lolu yëpp bo démé da fay fekk ne ah yàlla may na doomu aadama xel mo xamne xamna num koy jëriñoo ci adina bi motax ñaari xam-xam rek ñu am xam-xam bobu nga xamne ya'lamuna zahiran min alxayaati dunya وهم عن الآخرة هم غافلون خم خم بوب جكل نين كرة فتل نين دكو بوي دخ تيمبر دمي يانغي جيس خل بوي دم تيمبر دمي تالي بي بوي دوجي سي أوتو تالي مولاي جانغال تالي مولاي وخل دفل لي دفل لي دفل لي أمد كم كوفا نكت لا جانغال بوا خل مو ترل بعك خم نه تالي دفاي وخل ياو تالي دفاي وخل ياو xel moo la mun a xamal ne tali bii mën lay waxat te lii la may wax te lii laa koy sant bon xelu doomu aadama mooy yi ñuy jàkkaarloog di ko gis mu bàyyi ko ci xel ba pare ak li des te génn gut ak li des te génn gut te dina génn ndax yàlla moo ñu wax ne ku kullu yawmin huwa fi sha'nin te fekk àddina baa ngi fi waxtu wu nekk yàlla di bàyyi luy téye àddina bi loo xam ne ci leen dina nga mu di am yaakaar parce que yàlla bëggul yaakaaru nit tas waxtu wu nekk rek dana indil doomu aadama loo xam ne dina ko bàyyi mu aju ci dund pour dunda pour pour pour mën a sawar pour liggéey su fekkee liggéey nga ci sa tool benn at tool bi joxewut nga liggéey beneen at tool bi joxewut jeex na c'est fini dootoo dootoo liggéey ci ca tool ba ah waaye boo nee ah tool bi daal damay bàyyi parce que tool bi ñaari at a ngi liggéey naa deful dara dina am ñu am pexe ne la non non bul bàyyi tool bi mais defal pexe nangam defal pexe nangam defal pexe nangam boo ko defee di nga gis tool bi dina la joxe nga xel xel ngoog tol bi legi gen na ñor na nit ki am yaakar parce que yalla mo la wax ne sa yaakar du mo la ko tassal fek ya nga am yaakar bo xamne yaakar bu baax ci man la ba yaakar bu rafet ci man la bes bu sa yaakar ñawé ci man nak bu boobaa ya? atteel sa bop ne li ngay def dotu baaxati ah waye fek yaakar ba nga rafet rek bu boba, yow baye nga sa bop yalla yalla dila la sa bop ha ah. maa ngi waxtaan ak ñoom mu na barki demb ma dara gën te ci doom lu melni tan lu melni tan tan tànn tànn lii laa tànn lii laa tànn mais boo bu bu la yàlla nattoo nga ne man damay tànn sama bopp perte nga lu nekk perte nga lu nekk parce que amatoo dara parce que boo tànnee li nga tànn voilà mii ni jot nga ko jeex na c'est fini foo jëmati jeex na parce que sa tànn nga tànn nga jeex na c'est fini man kii kër gii laa tànn man mbub mii laa tànn man lii laa tànn nga dem yooyu yëpp ràpp na jeex na fi mu ne c'est fini sa tànn agsi na fi mu emoon périmé na fini mais su fekke nak da nga wax ne da ngay tan nga ne man awma tànn dama yàlla tànnal maa kaana lahumul khiyaratu min amrihim subhanallahi wa taala ma yushrikun kooku mo xam nak lay tànnee ndax bu xasse tan fi ne mom samatul lim tan mais ki ko tànnal moo koy samal ki ko tànnal moo koy samal te tan bu waxtu nek nak da fay gëna bes ci xolam da fay gëna rafet ci xolam parce que yàlla mi ko ko tanal moko koy samal waxtu nekk mu gën a neex ci moom mais boo tànnalee sa bopp rek c'est fini atte nga sa bopp ne man nii laa am man fii fii lii laa man oto bii laa bëggu man couleur bii laa bëggu man nangam bii laa bëggu et tout sa sa tànn la du sori yàggul dara waaye mais nag su fekkee bàyyi nga nga xam ne maa kaana lahumul xiyaratu min amrihim subhanallahi wa taala amma yushrikun bàyyi ci firi alquran maa kaana lahumul xiyaratu min amrihim mu ne doomu aadama doomu aadama ak mbindeefu yàlla yëpp tànn tànn nekkul ci ñoom tànn nekkul ci ñoom ci yàlla rek la tànn nekk moom parce que su na tànn nekk na ci kenn bon malaaka yi dañuy tànn iblis parce que kenn la woon ci ñoom duñ ko bàyyi mu alku hmm? bon dañ koy tànn bàyyi Adama parce que Adama suuf la kii nag moom kenn la ci ñoom waaye nag comme que tànn nekkul ci seen loxo dañ leen di tànnloo rek ñoom li yàlla tànn rek loolu lañ tànn yàlla tànn na Adama bàyyi nañ seen mbokk ak li nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee mu ne bon tànn nekkut ci loxo mbindeef yàlla yi tànn miñ ci loxo yàlla mu ne yonent yàlla Muhammad su fekkoon ne tànn ci loxoom la nekk bon du bàyyi baayam abu lahab ñu naan ko tabbat yadaa abi lahab ah du bàyyi bilaal ki nga xam ne képp kuy julli baatam nga dégg moo tax nga julli bon tànn nekk ci loxo yonent yàlla Muhammad bon dara gënul jafe dara gënul jafe ci doomu adama waxtu wu muy tànn borom xam-xam yu magi yi ki ñu mag ñi dañuy wax yow yalla yalla nga def suma tan mu nek ci sa bir tan allahumma ja'al ikhtiyari fi ikhtiyarika ha le suma nammee tan, yalla nek ci sa bir tan waye bu mu baye man kenn ma tan sama bop parce que bu ma tànnalee sama bop rek c'est fini bo tanale sa bop ki mën na la ko defal ak ci ki mo na am wax na ah waaw baax na demal waaw baax na nga waaw baax na waay bay sa ku lay couleur sa néeg sax ku lay blanchir sa néeg sax bu la tànnalee benn couleur nga ne ko bii laa bëgg beneen laa bëgg alors tayal na ci sa affaire defal li nga bëgg waaye boo ko bàyyoon mu tànn na mu koy defaree ci lay gën a matee ci lay gën a matee ci lay gën a dëgëree ci lay gën a baaxee ah mu tax tànn tànn dara gënu koo jafe ah na tànn gën a jafe noonu la bàyyi nit wala jàpp nit noonu la jafee ndax tànn gi mooy tànn gi mooy mooy jàpp wala tànn naa pour bàyyi ah boo tànnee bàyyi nit lii ngay bàyyi lan la ak lu tax nga bàyyi ko ku la ko laaj doo ko wax mukk la addina ah, doo wax mukk lu mooy ah ni ma def ni ah yow yaay kan yow nag li nga ko def xam nga ko ainsi de ah, ko defee nga tànn tànn boo xam ne boobaa tànn njuumte la doon doomu aadama li ñu ko bindee ci kaw suuf xam na ko te mu ngi koy dund façon bi nga xam ne nag dafa ëpp ci moom ba nga xam ne mënut a comprendre ne nekke comment nekke comment bi moom lay dund bër bu set ah moom laay dund bër bu set ah tey dama war dem ndakaar oto baa ngi nii tey mag wa tey Saint-Louis laa war a dem tey dama war a dem Paris et tout ça là loolu yëpp mu ngi tontu comment boobu ngay wax comment boobu ñu tëral di ko laaj te mu ngi ko amal réponse boo xam ne bu bu mat sëkk la parce que dafa ëpp ah dafa ëpp seen xel yi nga xam ne ñoo ko moom lañ ko bëgg a tënkee te mbir yàlla la te kenn du ko tënk yàlla kenn du tënk mbiram ah euh, euh, la laa mu aqiba laa mu aqiba li xukmihi laa mu aqiba li xukmihi nii laa ko tëralee kum neex toppal kum neex bul topp waaye kenn du enquête sama mbir lu tax ma defee ko nii kenn du ma enquête ah suma mbir a ngi tëral naa ko boo bëggee dundal boo bëggul bàyyil mais nag nii laa ko tëralee sa yoonu kenn nekku ci su ko defee bon ci nga xam ne doomu ci dundam yépp gëstu pour dolleeku xam-xam gëstu pour am dool euh, xam-xamam boobu may ko naka la mën a dollee boppam naka la mën a yëkkatee boppam jotaay yi ñuy def yépp du jotaayu plaisir wala nangam ak nangam mais jotaayu naka naka c'est comment naka la ñuy jàllee suñ dund bi ak jàmm ak dolleeku ak alal ak xam nit valeur am jox ko ko ak bëgg nit loolu yëpp naka la ñuy fexee ba jàll ko loolu yëpp mooy waral jotaay yi nga xam ne danañuy dajale ay nit ñoo xam ne euh, gëj nga leen a xam gëj nga leen a gis namm leen jotaay yu mel nii woon la leen te te lu mat fukki at ak ni yaa bëgg yaa ngi bëgg gis leen doo xam foo leen di gisee jotaay yi euh, nit yàlla indi la nit ñoo xam ne euh, ñoom la yàlla wax ne bés boo taseek ñoom rek bés boo taseek ñoom rek yàlla dina la oyofalal sa mbir dana la defaral sa mbir mbir defaral boo xam ne mën nga taseeg ñoom ci jotaay yu mel nii ah ndax benn ministre mauritanien mu ne jotaayu gàmmu yi daal dëgg la lu war di am la parce que kii depuis fukki at gisuma ko jotaayu gàmmu bi moo tax ma gis ko tey jotaayu gàmmu bi moo tax ma gis ko tey donc ba nit doomu aadama li muy wax comment yëpp bët bu set mu tontu ko ci ay actam bët bu set mu tontu ko ci ay waxam bët bu set mu mu mu tontu ci jàkkaarloo

loolu yëpp accès goo ci li nga agsi mooy lii ci laa toll naka laa koy jàllee naka laa koy jàllee yi nga ko war a jàlle yëpp yàlla may na la ay moyens yoo xam ne boo ko defee di nga jàll ci jàmm parce que dama dama ci kaw suuf missionnaire la boo xam ne mission yàlla moo ko sant na ko def ku nekk nag sa mission di ko def ni ko yàlla bëggee waaye nag ni ko yàlla bëggee ak ni ko yàlla gërëmee beneen affaire la yàlla nangul na la sa mission waaye yaa ngi koy def d'accord defal waaye nag est-ce que gërëm na ma wala gërëm loowu ma ah, mooy indi mission yi nga xam ne jullit ñi ñi gëm yàlla gëm yonent yi ñu ngi koy def ci kaw suuf si ñooñu yëpp li ñuy def yàlla gërëm na ko yàlla gërëm na ko yeneen missionnaire yi itam ñi ngi def seen yëf wala yarda yàlla te wala yarda li ibadihi al kufra boo xasee yéefar moom sa yëf mën a yàlla mënatu koo gërëm yalla mëna tuko gërëm nanguna nak nga def ko parce que mo yalla té lool lool moy sa moyen pour nga dund ci kaw souf ci ni nga ko war a dundee waaye li ngay def yalla gërëmu ko jullit lu def ak nu mënti mel ak nu mënti mel jullit la mu ngi wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah fu jullit nek mbokam la ah nañ wuté gis-gis nañ euh, euh goût nañ euh imagination nañ utee lu nek nañ utee sax quelquefois ci seen pratique religieuse nañ ci ute mais terewul ñun ñëpp ñoo bokk laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ah boo ko xasee wax rek fu mënti nekk sa mbokk la waaye kaw xam ne nag dafa bëgg a dugg ci foofu bëgg a génn nit ñi ci lislaam ah kooku nag moom mooy nit koo xam ne kenn xamut foo koy qualifié parce que boo bëggee génn nit ci lislaam parce que ni ma gisee lislaam moo gis moom gisewu ko lislaam vraiment yàlla wax na ne yow moomu di génne nit ki ci lislaam yow yaa nekk ci toor yaa nekk ci tooñ parce que l'islam diine yàlla la te yàlla nee na wasi'a kursi suuf nga nga eh, eh, kiyam rek kursiyam rek ëpp na asamaan ak suuf ko koo xam ne sa gàngoonaay ëpp na asamaan ak suuf comme yow nag moo tax suuf yanke yi nga xam ne dañoo xam yàlla ñu ne xam yàlla dellu ci yàlla yoon yi ci yóbbale nit mu ngi am ni suuf mu ngi mel ni mu ngi am ni pepp suuf yi ah dafa bari ba am nit pepi soufi nit ku nek man na langamu fi nga langamu ba ag ci yàlla euh, mak mak mag dafa ñëw ci pek gi di di jàpp waaye jàpp bi lele mu ko lax ndiku lele mu mu sa bok bi jaxase njàpp gi yeb dal ben xala gi tok di setan ne ko eh gor gi yow mak mom ñew te mëno japp doo rus ah mag moom yow rusoo mën a jàpp gi tank ci ndox mi rek xeppal ko ci xarkaram gi mu jàkkaarloog jak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaarloog saxaaba yi jàkkaarloog ñu kawe ñépp ci biir jumaay yonent bi sallallahu alayhi wa mu jiite leen ñi julli ah après mu daldi koy xëppal suuf tëjal sa gémmi wax mu di wax tëjal sa gémmi ah, góor gi ne ko xale bi ne ko dolliwaat ma euh, ndox mi mu ne ko toppal fële ah, toppal fële moo tax gis nga kooku nam gisee xale boobu nam gisee yàlla ne boobu mooy àggali ci yàlla kii moom fekk àgg na ba toog ci kanam yàlla ah yow yaa ngi toog di ut ay yoon mais moom àgg na ba toog ah bon euh, yooyu yàlla séddale ci biir nit ñi ah ñu koy dund ci biir nit ñi yooyu mooy jamono yi nga xam ne question bi nga laajoon comment tontu baa ngi noonu hmm? tontu baa ngi noonu ah comment lu tax ñu nekk ci àddina mu ngoog ci nga nekk bët bu set mooy bët bu set yaa ngi bëgg a dooleeku yaa ngi bëgg a dooleeku ci lu nekk yaa ngi bëgg a dooleeku ci xam-xam yaa ngi bëgg dooleeku ci am-am ah yaa ngi bëgg a dooleeku sa mbir gën a jëm kanam ah bëggoo dellu gannaaw bon su fekkee loolu du mooy réponse su comment bon fooy jëlee ci beneen réponse da ngay sonn rek mais doo ko gisati euh, mu nekk ay tontu yoo xam ne tontu imaginaire la doo ko gis ah. suñu suñ philosophie di la lakkal rek di la yégal ak wàcce ci seen théorie yu xóot yooyu yu foor yooyu nga xam ne dëgg-dëgg yàlla wax na ne ak yonent bu leen sonnal seen bopp ci masa ci masa masala yu jafe yooyu bu leen ci sonnal seen bopp seen leen num simple rek ngeen jàppee ko ko parce que attanu leen attanu leen diisaayu dund diisaayu dund attanu leen ko bon nag diisaayu dund rek doy na doomu aadama nga jël na danga ci teg beneen diisaay ah boo xam ne sa imagination rek moo la ko may mais du du du du réalité vraiment da ngay sonn sa bopp indil nit ñi coono bo xamne du jeex du xaj waye ba tay tam li ñuy def yépp baxna parce que lool yépp dox la ci biir xam-xam nga xam-xam ni mu yaato ha xam-xam du du tolu ben way rek ha xam-xam tolu yàlla la ha te yàlla neena wa si'a rahmati kull shay lépp lu am rek mu ngi dugg ci suma biir yërmande ha kursiyu samawati wal ard wala yauduhu xifzuhuma wa huwa al aliyyu al azim Ah, suuf si ak asamaan si li ñu rëy rëy attanuñ sama euh, sama sama tooguwaay sama sama gàngunaay bon nag naka te gàngunaay beeg suuf seeg yépp doomu aadama boo demee mu ko ittewoo doomu aadama mu ngi ittewoo asamaan si lu ci xew bëgg nañ koo xam ah bëgg nañoo xam asamaan si lu ci xew bëgg nañoo xam asamaan si lu fa nekk bëgg nañoo xam asamaan si ndax ñuy dund fa wala ñuy dund nekku fa loolu yëpp ñu ngi dugg di gëstu euh, te loolu ku ne xam na ne diisaay la métiwaay la boo xam ne doomu aadama moo koy subir te mënu koo ñàkk def parce que euh, bëgg xam-xamam bëgg dooleeku ci xam-xamam ba ko yàlla waxee ne yaa aadamu ambihum bi asmaihim boobu ba tey ci loolu ci la doomu aadama nekk di jëriñu pour waxtu wu nekk mu génn beneen xam-xam bu bees boo xam ne mu ngi koy jàngal nit ñi te nit ñi xamuñ ko woon te loolu yëpp léeg-léeg ñu gis ci loo xam ne lu nekk la ñu ngi ñu ngi gis ñu ngi gis ay ay ay façon dooleeku yoo xam ne ci biir dund doomu li ci gën a bëri sax dëgg-dëgg doomu soxlawu ko waaye nag xam-xam bi bu demee ba ba bëree bëree bëri euh, xam nga lu lu ñu naan lu fees tuuru ah lu fees tuuru tax scientifique yi àgg ci jamono boo xam ne àgg nañ ci xam-xam foo xam ne fi mu ne dañoo jëfuur mel ni ay dëmm yu jëfuur waaye defar defar defar nit fi mu ne ñu ngi defar nit ah, ñu ngi ba paa pas defar nit waaye parce que nit yàlla rek moo ko mën a defar waaye ñu ngi jëlee ci nit def def def def def def ba beneen nit génn ci te du jaar fa nit daan jaar pour génn ah loolu xam-xam nga koy def léegi mu ngi defar ay robot yoo xam ne presque ah nit lañ euh, sant leen ñu def toog leen bàyyi leen dem leen dem leen ubbi yooyu yëpp fi doomu adama àgg na ci ci xam-xam euh, ci euh, yëpp te te bëggut a foofu bëgg naa dooleeku te waxtu woo xam ne bëgg naa dooleeku ci xam-xam yàlla neen naan ko wala dey naa ah wala day naa masid loolu nga soxla yëpp man am naa lu mu la ko doolee am na ñoo xam ne nag daf leen koy mayee façon bu nekk xam nga li yàlla wax yonent yi may naa leen ko comme ay mujisa ay kéemtaan pour nit ñi gëm ne ay yonent ngeen yàlla ne leen yéen doomu aadama it may naa leen ko waaye yéen du yoon ko am par mujisa mais da ngeen koy am pour par ñàkk da ngeen di jaay seen ñaq da ngeen di jaay seen xel da ngeen di jaay seen xam-xam moo tax lu yonent yi def comme mujisa rek boo demee da ngay fekk na doomu aadama yi def nañ ko mais ñu ngi ko jaarale ci xam-xam ak xel ak gëstu ak coono ah yonentu dem na asamaan nit ñi dem nañu asamaan dem nañ ca weer wa Yuusa euh, Muusa xotti na euh, euh, géej gi mu nekk ay yoon yoo xam ne nit ñaa ngi ciy jaar nit ñaa ngi tabax ay kër léegi ci biir géej gi dafa dund sans problème dund comme ñuy dund ci kaw suuf si ainsi de suite picc yeeg jën yéeg et tout ça la lépp lépp lépp adama fa saxar naa la hur yaxata jiri bi amrihi ruxaan léegi passé nañ foofu fusi yi ñoo gën a gaaw ngelawu Euh, euh, Souleymane boobu fusil yeeg avion yi ñoo gën a gaaw ngaramu Souleymane boobu te yépp dama damaa ko liggéey waaye ni ko yàlla mayee kële mu nekk moo gise kii def ko koy may waaye nag da ngay da ngay def sa ñaq ngay def sa doole da ngay gëstu da ngay am kattan pour mën a àgg ci yooyu mën ko firil doomu aadama yi bu ko defee yàlla moom nga xam ne nag fu doomu aadama nekk moo ko fa àggale du doomu aadama mën yàlla moo ko ko mën loo ñu ngi ñaan yàlla moom di may doomu aadama yi jamono bu nekk yal nañu may yal nañu may ci suñu jamono bii ci suñu ron mbaar mii ci nit ñi fi daje góor ak jigéen ñoom ñëpp ñu ngi ñëw jóge fu nekk ak ay seeni tànk ak seeni oto ak seeni essence yëpp ñu génne ko te dara taxu leen koo génne lu dul dañoo jokkuwante ngir yàlla dañuy ziyaarante ngir yàlla loolu bor la boo xam ne yàlla ngeen ko lebal te waxtu yàlla di fayee nga xam ne kii la kii la leb amna na lum la fayé tax laaye yi xale bi ubbé euh jotay bi mom la mom la waxone sax ci lay waxtane ci lay waxtane inna allaha ishtara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum jannata yàlla yàlla jënd na ci jullit sen seen bakkan yi ak sen alal suñu bakkan yi ak suñu alal tay jii yépp génne nañ ko pour yàlla parce que dañoo jógee ay oto ay sareet ak ay lu nekk yépp mën naa am accident ci yoon wi ah mën accident mën na ci jógee euh, yàlla tere yàlla bu mu am ah bu boobaa faalewuma waaye li may jaayanteeg yàlla dinaa ko def bon ak nga ci jaayanteeg yàlla daraja bi nga xam ne vraiment daraja jaayanteeg yàlla mënu koo passé ah, wax naa ci ni jëriñ jotaay bi ma ne mbooloo yu mel nii am volonté bu mel nii am dogu bu mel nii naaj yu tàng faalewuñ ñu ngi ci ron naaj wi naaj yu te tàngaayu eh, kënu boo boo ko boo ko dindal bu Kaolack bi Kaolack galaas la ah, ndax ñoom ay 45 ay ay ay 50 foofu la àgg nit ñi ci naaj woowu ci stade boobu nga xam ne amul mbaar nit ñu mel nii ku bëgg a jóg dimbale yàlla nit ñi ngay àndat ndax seen dogu maye na ko ah, seen bëgg-bëgg maye na ko seen gëm maye na ko ko am nit ñu mel ni ànd ak ñoom ne damay liggéeyal yàlla amul sikk sàkka ne yàlla dina la nangu waaye ba tey mbaar mi xaaj la ci nit ñooñu rek parce que ñoom tamit dara taxu leen a jóg dara taxu leen a yëngatu ah dañuy jokk ngir yàlla dañuy jokk ngir yàlla maa ngi laaj Baye Mar sànq mën na ko waa nit ñi ndeysaan ku ñuy ziyaare waaxi ah, ah ku ñuy ziyaare ah, mu jàngal ma ne Baye Mar ne ma Baye Mar ne ma maaxi baay maaxi baay moom la ñuy ziyaare ji waaye ziyaare yow bàyyi maaxi maaxi baay moom la ñuy ziyaare bon nag buñ ñëwee maaxi moom nga ragal ne moom moom lañu war a ziyaare nekku fa bàyyi moom la ñuy ziyaare si moom lañu fekk voilà bon donc euh, pourquoi et comment euh, euh, nit moo la koy firi léegi nit moo la koy firi léegi comme noonu ma Baye Mar firi wax bi léegi jaaxal mais comme mais ñi ku ñu ziare kan pourquoi waaye non du du yow Baye mom lañu ziaré ziare si Baye moom la ñuy si évidemment awma luma ci mun a hein ah te maa fi gëna mëna critiquer ma fi gëna mëna mën a gëstu maa fi gëna mëna mën tout ça waaye aw ma aw ma lu ma wax parce que nit ñi ñëpp dajafi seen xol yi euh, ak nit ni jafe ak xolam ku ko mun a déranger indi ko ci jotaay bi nga dox dox bu rëy boobu tukki tukki mu rëy moomu lu nekk mun na la see fekk bon nangu nga la la yàlla wax ne inna allaha ashtara min al muminina kon sa bakkan jaay nga ko yàlla def nga ko ndax lu nekk mënoon la cee fekk anfusahum wa amwaalahum mu teg ko ci seetal biñ ne génne leen àddiya ah nit ñëpp génn nañu génn nañ seen alal yi pour joxe ko waaye ngir yàlla moo tax mu joxe ko parce que yàlla moo wax ne jaayante naa ak yoon ci seen alal ak seeni i ah, ak seen i bakkan donc sama bakkan a ngi nii génne naa ko yóbbu naa ko ca tànt ba sama alal a ngi nii génne naa ko joxe naa ko ci tant ba te dara toxul ma joxe ko lu dul li nga wax yow yàlla ne inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljannata bi anna lahum aljannata ñi def loolu ba pare yàlla nee na may na leen ba pare mu duggaat ci yeneen détail yoo xam ne jotewut ak yële dara يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز العظيم دونك nit ني داجي سي mbar تاي موي نيت nit يالا واخ ني سي تورات موي نيت nit يالا واخ ني سي الانجيل yàgg nañoo daje te yàlla moo tax ñu daje ba pare mooy nit ñooñu nga xam ne yàlla wax na ñu ko ci alxuraan yàgg nañoo daje pour yàlla bu yàlla di teral benn yonentam nit ñu mel nii la koy dajaleet pour ñu ànd dem ci yàlla bu yàlla dajalewut ak Cheikh Ibrahima radiallahu anhu ay nit ñoo xam ne noonu lañ mel ah na yonoon na nit ña meloon ci yonoon te noonu lañ mel ci moom bon mbaar ñii du am bon mbaar ñii du am parce que du duñ xam lu koy amal ah parce que euh, fii suma su ma su ma suufi ay maam lañ ñun ay ceddo yi ñoo fi dëkkoon ah ay ceddo yi ñoo ko moomoon euh, nekk fekk si ba maam Wàkk Sarr ñëw fii indil ñu ay problème yoo xam ne euh, ah, bu kàbbale ñu ne ko eh topp fii ma ngaax fi de bu jullee ñu ne ko buuwal sànni alors suuf soosu mooy suuf si tey ñu jàng fi fanweeri kaamil ak ñaata ah, ñu jàng fi fanweeri kaamil ak dara su taxutoon na euh, et comment

su fekkoon ne loolu du réponse comment dëgg-dëgg woon comment amul réponse hmm? te te réponse bu dëgg la te bu ngeen ko bu ngeen ko kóotalee yéen yéen universitaires yeeg yéen jàngkat yeeg euh, te ba bu leen wax ne kii benn ndongo daara mooy wax rek du benn ndongo daara mooy wax ah nit buy wax la mais dafay wax ci xam-xam ah, te xam-xam boo ko bëggee tëj ne fii la rek xam-xam rëcc na la amatoo ko jeex na ci yow hmm? xam-xam yàlla dénk ko ci ben place mayu ko kenn daf ne ci alquran allama bil qalami allama al insana insan la wax ha waxul insan gharbi wala insan afriqi wala insan arabi al insan fi kulli makan bo deme yàlla moy ki nga xamne moko jàngal xam-xam yàlla momu jàngal la xam-xam yàlla mom moy ki nga xamne mo bindu yo ak melentane ha ak fel ak téeñ téeñ téeñ yi nekk ci mat la yi mat <laughs> mat loo yaxar mat ah, mat ah, ah, yooyu yooyu yëpp yàlla yàlla moo ko bind yàlla moomu bind yu tuuti yooyu moo bind asamaan yi juróom-ñaar moo bind jant bi moo bind weer wi moo bind malaaka yi moo bind ñay moo bind àddina moo bind alaaxira te yooyu yëpp amul ci benn boo xam ne génn na génn na itte ah, ah, inaayatullah itte itte lañuy wax de ah ah ah génn nañ itte yàlla yàllaa ngi leen di itte woo yooweeg matt beeg teeñ weeg yooyu yëpp yàllaa ngi leen di itte woo ah bàyyiwu leen ñu sànku kooku nga xam ne mu ngi itte woo yi gën a ndaw ci ci ci mbindeefam yi te te yooyu mu wax am na yu ko gën a tuuti te yooyu yëpp ah yàllaa ngi leen bind yoo xam ne mënoo leen a gis ak bët il faut nga ut microscope door a mën a door leen gis te ñu dund ak ñu ci dund bi te ñoom ñëpp yàllaa ngi occupé seen affaire dara du ci génn fa mu warta fa mu warta génn loolu boo ko rek mooy da ngaa bëgg alak sa bopp jeex bon yàlla moomu bu fekkee da ngay wax ne xam-xamam dama koy émale académiquement vraiment xam-xam romb na la hmm? xam-xam romb na la euh, te te xam-xam Euh, euh, bàyyi dina bàyyi ne nañu faslanteem xànc ak moroomam sax xam-xam la boo amul xam-xam doo ko mën faslante xànc ak moromam xam-xam la donc xam-xam dafa yaatu te pour te pour nit la te pour nit la du pour njaal yi du pour ñeneen ah ñu ñu xam-xam yooyu yëpp nit la ko yàlla may nit ñooñu nag am na ay ñoo xam ne ñoo njëkk ci àddina bi donc ñoo njëkk am xam-xam ki la njëkk am moo la njëkk a xam ah moo la njëkk am moo la njëkk xam moo la am ay expérience waaye eh, comme noonu la toftaloo xam-xam eh, ya nekk ci Chine xam-xam ya nekk ci Inde eh, xam-xam yi nekk fu nekk ci àddina bi boo demee Chine am na ci ay guide yoo xam ne janax mooy seen yàlla janax janax la ñuy te ñu ngi ci am ay xam-xam yoo xam ne bu ñu la ko waxee rek nga nga nga nga xéemu ah. parce que xam-xam gis na janax fay doli dundu janax fay doli wërsëg janax fay da fay da fay ah yu bari janax fay tax nga nga nga ngay am dom yoy yeb gis nañ ne barke janax ci biir sa kër da fay may yoy yeb tay yëpp yooyu yëpp boo nga ko gis ci waxi nit ñi ndax arab yi buñ démé bay woné na ñom dañu ñak amatuñ dara dañ nan la suma janaxi néeg dee ha ah maanaam ba dara tu fa donc bon janax fu muy nekk dara dafay nekk ah donc bon ñu ngi bëgg a na janax dafa am dafa am importance dañuy jaamu janax boo gisee dañ leen di tabaxal ay tabaxal yoo xam ne bu bu janax ñëwee tëdd ci sa kaw doo yëngatu ah parce que léegi tey nga dàq ko mu dem te barke bu la yàlla yónni la te yow boo dee da ngay soppeeku janax janax bu dee daf lay soppeeku ah yooyu yëpp boo demee am na nit ñoo xam ne seen xam-xam dañuy waxee at noonu ah. xam nga boroom xam-xam boobu di waxee noonu ci janax boroom xam-xam boobu di waxee noonu ci nag boroom xam-xam boo waxee noonu ci ay yoo xam ne yëpp yëpp xam-xam la te dañ koy lay ak ay xel yoo xam ne xel yu dëgër la waaye nanga koy nangoo foofa naka ngay nangoo foofa ci ay nit ci siin ne ne ne janax mooy seen yàlla boo ko bëggee wax euh, njaañ mii ne ko janax yàlla la fooy jaar ba wax ko ko ah ah fooy jaar ba wax ko ko ban xel ngay xel ngay am pour wax ko ne janax yàlla la do do do du mënti am mënul nekk ah waaye nag yàlla bi nga xam ne yàlla la nag moom soxlawul sax nga nekk fii di layal nit pour yàlla non non parce que yow yaay kan pour layal ah maaliku samawati wal ardi huwa lawul wal axiru wa zahiru wal batinu loo koy layalee ah ku ko weddi bàyyi ko mu weddi ko rek tant pis sa sa sa nice la ah ku gëm itam bàyyi ko mu gëm ko rek parce que itam yëfam la moom tamit waaye dama dama dama nekk aate gëw ma yàlla euh, yàlla amut neexut sa sonne mal yàlla amut neexut neexutu dégg ci nopp waaye waaye li xew dëgg-dëgg mooy man awma man aw ma yàlla moo am

dara nekkatu fa ah kërën kërën kërën kërën kërën rek waltafati saaqu bi saaqi ila rabbika yawma idin masaaqu fala saddaqa wala salla walakin kadaba wa tawalla summa zahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla summa awla laka fa awla voilà foofu la mujjee ñoom ñëpp ñoom ñëpp foofu la ñuy mujjee ah tiitaru euh, soxna sàngi ne bon madame gis nga gis nga ma tey ci gaañi gis nga sama euh, ah gis nga tey ni ma def gagné ci télévision bi ah gis nga ah voilà ainsi de suite loolu yëpp ah, pour tiiter la nga xam ne da koy tiiteroo ci sa biir àddina bi gis nga oto bi ma la yëndal madame gis nga kii gis nga gis nga gis nga voilà topp sa morom yi itam di leen jaay rëy parce que àgg nga foo xam ne ñoom àgguñ fa yàlla nee na awlaa laka summa awlaa awlaa laka fa awlaa summa awlaa laka fa awlaa yow yaa perte kenn gënu la perte ta perte rek ngay fekk ci adina bi parce que da nga doy lo lo xamne bala ëlëk mu jeex wala yow nga jeex summa zahaba ila ahlihi yatamatta awla lak fa awla summa awla lak fa awla ay yaxsabu linsaanu an yatruka suda ha ndax nit ki dafa foog ne man dama ko bàyyi noonu rek dama ko bind rek bàyyi ko noonu comme ça ah ay yaxsabu ñu an yatruka suda dafa foog dama ko bind rek bàyyi ko noonu lu ko neex mu def kenn kenn du koo toppatoo ah ah alors bu ko defee nag bu delloog ñun nag ke suñu cosaan alam yakun nutfatan min maniyyin yumna summa kana alaqatan fa xalaqa fa sawa fa jaala minhu zaka zawjayni zakara wa unsa alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al mawta oh là là ah seet leen seet leen alxuraan ak ak neexaayam ak xam-xam ah ak ak ak kawe doomu aadama ndax yu kawe yu sell yooyu yëpp doomu rek la ko yàlla may mayu ko malaaka yi moo tax doomu moo gën malaaka waaye ndax euh, doomu aadama dañ ko programme noonu rek comme sa am sa télé sa ordinateur rek programmer ko ci benn programme programme boobu rek lay def ah moom du si dugal loxoom du soppi na ko na ko wax na jaaral fii rek foofu lay jaar c'est fini malaaka yi itam noonu lay jaar fii rek ah c'est fini yéen lii rek ngeen dëkk ah, يسبحون أنا الليل وأطراف النهار ولا يفترون ولا يفترون لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوم سيفين دم هذا بنك موم يهل دفع بقيت موم ها نون ممل نون ممل كل كفا مو بقي دم هذا بنك ستر ست ست أجمام كفرن تيم نون ها دم هذا بنك بقينا منك دومم ها بلين ديك دوم دوم يجور waaye comme ni bàyyi bi mel ak doom quelquefois yàlla daf koy mel nit ñi ah, ni ni ni ni maam di mel ak yàlla daf koy mel ak nit ñi ah, bàyyi leen euh, euh, euh, malaaka yi ne yow yàlla ñii li nga leen bind ak wërsëg lu leen jox yëpp ba bu seen ñu di la mooy dooma bàyyi ma daane asamaan ci seen kaw yàlla na ah, non bàyyi leen leen yéen bindu leen leen man maa leen bind donc man maa xam ah ni may jëflanteeg ñoom bàyyi leen jàmbur leen bu leen waxati dara Ah, noonu noonu la foree ci doomu aadama noonu la yàlla fooralee doomu adama noonu la ko bëggee noonu la ko kaweelee moo tax noonu ma ko kaweelee yépp su fekkee doomu aadama amut xelu laaj boppam moom li mu war a laaj boppam lan moo ma war sama digganteeg li nga xam ne mu ma wër yépp ah, lan moo ma war sama digganteeg loolu lan moo ma war sama digganteeg asamaan si lan moo ma war sama digganteek suuf si lan moo ma war a war suma digganteeg sama moroomu nit ñi fan la wara jaar nan la wara dundé ak ñom loolu moy laaj bi nga xamné mo moo ëpp importance du ou du je viens hein parce que euh, kenn du ko tontu ken du ko tontu waaye parce que ñom ñemewuñ ko tontu parce que buñ ko ñemee tontu dañuy contradic euh, ñuy nekk en contradiction avec eux parce que yalla amut ba pare bëgg nangu ne am na beneen dund bu jitu jitu ya sa dund bi alors bu boba seen wax da fay tabbi ci da dafay tabbi géej léeboon lu pen Euh, euh, tàbbi na géej ah, moo tax dañuy sax rek ci seen weddi yooyu ñi nga xam ne nag ñoom am nañ nangu gëm nañ moo tax yàlla bu mu ñuy tànnal depuis aadama ba léegi baat bu mu ñu tànnal ne nañ koy topp mooy baatu islaam jébbalul nangul jébbalul nangul toppal comme ni ko mun a waxee sànq boo nangu jébbalu woo toppoo ah, am ah wax demal taseeg seytaane yi hmm? demal taseeg seytaane yi ñu def ci yow lu ko neex hmm? yóbbu la ca baar ba yóbbu la ca voilà yooyu nga xam ne moom nit ñoo yem xam nga nit ñi loolu ñuy defar ñoo yem ñu ngi ñu ci suñu bopp quoi hmm? suñu bopp bu ndaw bi ñu ngi foofu waaye sa bopp nag dafa ëpp loolu sa bopp mooy xuliqal insaanu fii ahsani taqwim سبب موي ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر و ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا كوكو موي دوم ادم ديغا خامني موم لا يالا دي تيترو موم لا يونت دي تيترو الا واي نك يوي ييب نك لا سي اگيه نك لا سي اگيه دما دما يغنا گستو دغ دغ ديغنتي مك لي ييب لان لا ها am na ci ñoom ñu teel nangu ne suñ diggante daal am na loo xam ne gisuñ ko te loolu mooy mbóotu suñ nekk fii ci àddina donc bon loolu moo yàlla mais yàlla jooju anamu ah bu ko defee lu leen tiital rek ñu ne ah yàllaa nga nele bu asamaan si melax ñu ne ah yàllaa nga nele ñu jaamu melax jaamu asamaan bu géej gi yëngatu ñu ne yàllaa ngi nii ah daal di def ko yàlla bant bi bu daanu ah mi ngi nii ba jël ko ettu ko def ko yàlla lu nekk yàgg naa gëstu yàlla pour ne am na lu ko fasaleeg ak dund bii daal du kese kese kese jëmm ji rek la mais lu gën a foor mais ana mu gisuñ ko bon nag nañ ko jëmmal ci suñ xeer yeeg suñ jant yeeg suñ nangam ak nangam yeeg ak ak ak ku la gën a muus ah ku la gën a muus rek dana la nax ku la gën a muus nax la waaye alors am na nag ñi nekk yekk nag dañuy muusante dañuy gën a muusante ñii am na ñoo xam ne dañuy muus a muus a muus ba àgg ci nit ne ko man maay yàlla nga ne ko ah wax nga dëgg de ah ndax yow mii nii nga mel nii nii nga mel nii boo dootoon yàlla doo ko mel voilà mu ngoog maa yàlla jàmm na par force nga jàmm ko parce que parce que yàlla nga doon yàlla nga doon jàkkaarloo ak yow fekk loolu yëpp yàlla ah yàlla ne na maa ngi ñëw man dimbale si la yow nit ki pour nga xam may kan ah dal di yónni yonent yi ñu ñëw pour xamal jaam yàlla yi ñooy ñan yonent yooyu bi ñëwee ñoom ñëpp dañuy wax ne dañuy jébbalul yàlla dañuy jébbalu nangul yàlla moo tax cheikh naa ci biir waxtaan mu ne nit bu amut kilifa boo amut yàlla amoo kilifa ah wa annal kaafirina la ah la mawla lahum amuñ kilifa moo tax lu leen neex ñu def ci àddina bi te yëpp dafay tas ci seen kaw nag waa seetal depuis huit huit siècles six siècles yoo xam ne occidentaux yi ñoo ko amee àddina bi ne dañ koy jubbanti ne dañ koy jubbanti seetal vraiment ndax jubbanti nañ ko wala déet ah waxtu wu nekk mu gën a lë bu ñu demee ba ne jubbanti na rek. am du na xok xok xok ñu ne ah gaaw leen am du na xok xok xok gaaw leen waa guerre bi Iran wala Iran wala Irak a ngi nii wala Libye pétrole feeñ na Sénégal ah ainsi de suite yëpp njëkkalante rek pour nangu alal nit ñi ci loo xam ne du yoon te boo waxee ñu ne l'islam diine terroriste la diine yàq la mais dëgg-dëgg am na ay koorgale daaw am na ay ay ay intellectuel tubaab yu mag yu ma seet si

lu dul jàmm ci àddina bi ay seet naka nga ko naka ngeen di jëlee ay woowu indi ci àddina bi comment mu ne ko d'abord lii indi ay yëpp ci àddina bi ci seen loxo la nekk yéen a amee arme yéen a am alal ah yéen a am xam-xam ah. bon nag lu lu xew ci àddina bi rek ki yéen la génne wala am ngeen ci part de responsabilité ñun amuñ arme mënuñ koo defar bon bu ñu fetalantee ci seen armes yi leen fetalantee parce que yéen ñu ko jox bon téye leen seen armes ah seen xaalis bi ngeen ñuy jaxasee ñuy xeex kuru kuru ko téye leen seen xaalis bàyyi ñu dañ am ay pexe yoo xam ne dañ ko dundee te doon seen xaalis donc bon seet leen seen bopp yéen li ngeen di def pour jàmm am ci yéen lay bàyyeekoo wala ci jullit ñi lay bàyyeekoo yéen yéenay bopp bi dem leen ngeen seet ah, dem leen ngeen seetaat seen bopp mm. ah da ngeen seetaat dëgg dëgg li ngeen di seet jàmm ji ngeen di seet ci seen loxo bu leen neexee rek mu jeex que yëpp yi indi ay ngi ci seen loxo hmm? ah ay ay ay professeur ah voilà ah, kii ñun dañoo bëgg indi beneen diine boo xam ne dina dajale diine yëpp yooyu yëpp may leen yooyu yëpp dëgg la yéen a ngi góorgóorlu pour def dara comme nit mais bala ngaa indi ay diine pour soppiwaat nit ñi beneen façon mais diine biñ nekk yi nañ ko miin rek ah yombalal leen leen ko ñun jullit ñi amuñ ay aj bi yéen a ko def yéen ko indi yéen a ko indi ba pare di yuuxu ci suñ kaw ah mu ngi mel ni ki doon xeex ak wujj wi ko dagg nopp bi ne woy ma looy dagg na sama nopp bi te moo dagg noppi jàmbur bi <laughs> ah. ah voilà c'est que euh, mooy mooy tubaab yi def ñu lu ñuy def ba pare yuuxu naan terroriste terror ñoom ñooy ay terroriste vraiment ndax ñoo am lu ñuy defee terrorisme ci àddina bi ñun amuñ ko hmm. alors su ko defee bon euh, ñu ngi ñu ngi ci gomoon tey yàlla dajale na fi ci mbóotam mbóotu yàlla moo ko indi fii ci gomoon tànn gomoon pour mu nekk dajawaay boo xam ne waa gomoon teeroo nañ seen gan jàng fanweeri kaamil alxuraan ñu tëj ko ci ñaan goo xam ne Cheikh Ibrahima moo ko tëj ay secret ay mbóot yoo xam ne mbóotu yàlla la yàlla jagleel na ko gomoon tey ci ron mbaar mi ci jullit ñu tedd ñi ci ñu kawe ñi fi toog ñëpp ah euh, ay ay borom xam-xam ci âge bu nekk ay borom xam-xam yoo xam ne ay jeunes lañ ay borom xam yoo xam ne ay mag lañ ay borom expérience ay borom yi dégg-dégg yëpp daj yàlla dajale leen ci gomoon gi ah ñu ngi ñaan yàlla mbóot mi tax yàlla dajale ñu fi ah yàlla nañu ko yàlla dëggalal ci suñu bopp yàlla nañu ko yàlla dëggalal ci suñuy doom suñ njaboot yal nañu ko yàlla dëggalal ci suñu dëkk nañu ko yàlla dëggalal ci suñ réew yal na yàlla yëkkati Sénégal yal na yàlla dolli Sénégal bu yàlla di dolli Sénégal ci ay doomam la koy dollee mais keneen ku ñëw ne daf le dama leen di dolli rek daf ñoo bugg a sàcc hmm? dama leen di dimbale pour ngeen nangam dama leen di daf laa bugg a sàcc <laughs> mais tubaab dina dimbale kenn ngir yàlla daf koo xam ah mais kii daf bi bu ma ko rek mën naa jël li ma soxla ci mom yëpp te ma bu mën ko mais voilà attention ah rek mu nelawaat puis c'est tout hein alors bu ko defee ma tank li ma bëgg tank tànk yëpp donc bon ci jamono bobu nga xamné génération bu ndaw bi ya ngi màgg si di gis gis yo xamné ñun ñi leen jiitu woon gisuñu ko won di am expérience yo xamné yu bees la yoo xam ne bokkut ak suñuy expérience ñu démb yu bees la yu ànd ak jamono bi yaa l'internet yaa euh, euh, euh, Facebook tout ça là yëpp a fi te yooyu yëpp dafay joxe ay xam-xam yu bees mais fexe leen bu baax a baax ne ñun tamit dañoo bugg soppeeku ànd ak jamono mën ci liggéey loo xam ne jombut nit mu liggéey ko jombut nit mu defar avion parce que nit rek moo ko defar jombut nit mu defar oto

coono yi ñu daal yëpp ñu tëë développé fu mu ñu bàyyeekoo ndax suñ na sax la wala fekk na ay pexe yoo xam ne lalal nañ ñu ko te amaguñ kattan buñ ci génnee amaguñ kattan buñ ci génnee bu ko defee nag ngeen ngeen xeex rek di bés muy dem ah, nangu nangu coono nangu xiif mais bu ma dégg étudiant euh, université yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi grève parce que lekk gi ñu leen jox baaxul vraiment damay bëgg a jooy damay bëgg a ree parce que ku jóg te xam-xam taxulaa jóg vraiment lekk dérangé wu la ah lekk dérangé wu la xiif dérangé wu la ah parce que ñi am xam-xam yëpp Einstein amutoon lu mu lekk amutoon lamp bu mu ci poto lamp yi la daan dem di jàng ron poto yi di jàng mais gis ngeen yéen àddina ba léegi àggaguñ ci Einstein ah ci ci physique ka àggagu ci moom yim tëral ron ci la nit ñi di jaar rek di dem te amutoon lu mu lekk amutoon lu mu lekk ñoom ngande yooyu yëpp ah, ak Cheikh Ibrahim radiallahu anhu euh, voilà euh, ñuy fàttaliku Medina démb gi dina fàttaliku ne du Medina tey gii Medina tey gii ca Medina démb aljanna la ñun agsi nañ aljanna ah. parce que euh, ñun bi nekkee xale suma maam ñun dañoo am ay maam yu dëkk Kaolack suma maam Yacine boo demee lekk foofu lekk gu neex lekk soos wala lekk ceebu jën nangam ak nangam doo nangoo raxasu ndax boo ñëwee wax ko benn waa mel ne lekk naa ceebu jën du ko gëm bu ko defee nga ne ko fóonal <laughs> alors ah mais gis ngeen fim mu si léegi ah gis ngeen fi mu agsi léegi su fekkoon ne xiif rek mooy tax ma daw xiif euh, lekk gi neexul rek mooy tax ma daw mais boo ci góor ñi tabax ëllëg ah mais eh, sonn naa xiif naa mais dama bëgg a bokk ci góor yi nga xam ne dañuy soppi defar hmm? ndax boo xiifu boo xiifut ma euh, sonnoo doo xam doo xam coono ñeneen ñi ah président yi nga xam ne def nañ ci seen réew yëpp yu tekki dara boo demee ci seen jamono ñu sonnoon lañ ah ci seen jamono jeunesse ñu sonnoon lañ xam naa ci kenn ku ñu wax Sadat président af euh, état euh, kii Égypte vraiment coono bu nekk na apprenti oto nekk na lii nekk na lii Erdogan bi Erdogan bi marché daan dem di jaay ay xaal ak ay nen ndax mu am dara pour jox yaayam mu togg añ loolu nekk mais léegi mooy président euh, ah Turquie te ëpp na président sax léegi ah, léegi leader la moom tamit waaye alors moo tax euh, il faut ngeen jàng te ngeen jëriñoo seen jàng jàng du jàng du ni ma neexee laay jànge ah, waaye ni xam-xam nekkee noonu ngay jànge parce que xam-xam neexalut kenn te te bu leen jàng rek pour àgg ci benn étape fii lañ am kii am na doctorat kii am na agrégation euh, d'accord baax rafet na parce que da koy rafetale sa sa meuble sa nekk ah mais meuble boobu ak yow du ngeen benn ah. yow nit kooku nga xam ne loolu ñu la waxal ci doctorat bi ne am nga ci këyit gi nga am na ko nga wane ko ci say jikko nga wane ko ci say jikko nga wane ko ci jikko def luy dolli nit def luy baaxal nit def luy yokk nit ah def lu am njëriñ pour doomu aadama bu booba ngay door a àgg ci ruuxu xam-xam mais am naa diplôme bi rek wékk naa ko mokkal naa texte yi mën naa ko tari tout ça là wala article sangam addi sangam dët sangam ah, ah vraiment doyut pour génération bu bëgg soppi ah doyut bëgg a soppi da di da ngeen di xam xam bu baax a baax a baax xam suñ maam yi xam jotaay yii ñuy am ni fu mu bàyyeekoo ak lu ko cosaanal ak lu mu ñu bindal ah loolu yëpp dooleeku doomu Adama Njaay la te doomu Adama Njaay lu koy dolli moo gën lu koy lor lu koy yëkkati moo gën lu koy daane lu koy kaweel moo gën lu koy suufeel lu koy jegeel mbokki doomu aadamaam moo gën lu koy soril mbokki doomu aadamaam ñu ngi nuyu ba MC Baye Mbaye agsi na léegi ñu ngi koy nuyu di ko wax marxaban marxaban marxaban wa ahlan wa sahlan Euh, voilà bu ko defee jotaay bi xaw naa yàgg ah, nit ñi toog nañ ba sonn euh, ñaanal leen yàlla bu baax a baax lépp lu ci suñu xol lu ma am ci suma xol yépp may naa leen ko yal na ko yàlla nangu yal ko yàlla nangu li ma am ci yëg yëg yëpp yëpp vraiment may naa leen ko yal na leen ko yàlla nangul yal na yàlla yëkkati yal na yàlla dolli Sénégal yal na yàlla barkeel Sénégal ci doomu Sénégal yal na yàlla may sénégalais mu yëg responsabilité ci Sénégal doonul ne Macky Sall rek moo moo moo moom Sénégal ñun ñëpp a moom Sénégal moom la yàlla jiital liñ bëgg ci Sénégal yëpp mooy jàppale ko di ko ñaanal yàlla. yal na ko yàlla defal tawfiix na ko yàlla defal tawfiix moom la yàlla may mu jiiteel ñu suñu réew yàlla moo ko tànn may ñu ko yàlla nag lim la tànn may na ko def na ne la in shakartum la azidannakum bu ngeen santee ma dolli leen wala in kafartum inna azabi la shadid bu ngeen weddee li ma leen may nanguwu leen ko mbugal moo ciy topp mbugal mi nag mooy jàmbat yi ndox mi yàqu ma ma ndox mi pétrole bi ceeb bi eh, mbugal maa parce que santoo yàlla yàlla indil la coono mais nañ sant yàlla bu baax a baax ñaan yàlla suñ président du du du nit ki ci boppam mais responsabilité réew mi moom la moom lañuy ñaanal yàlla na ko yàlla musal gannaaw moo ko jiite al foog ñu ñaanal ko yàlla bëgg parce que lim am lim amé ñun ñoko mom donc dañ ko wara samalé dañ ko wara samalé ci ñaan dañ ko wara samalé diko encourager boo defee lu baax waaye dañ ko wara euh samalé suñu réew parce que bu ya ko ñokoy perte yooyu yëpp dafa nekk ay responsabilités yo xamné dañ ko wara a hein ñun ñëpp ñu sàmm ko deug la nit du ñak ay opposants deug la c'est vrai loolu kenn werantewu ko mais na nekk opposants yo xamné tam opposants yu honnête lañ Hein, opposant yu honnête lañ du opposant yu wax yow nga xamné gis nañ la barki dem ngay dugg nga xamné nangam ak opposition hein, opposition problème mi deug deug deug nga wax hein, population bi waye kii dugg na fi yafay jaay chaaf yaayam oh Non, la ma jotee yaay yaay yaay yaay jaay président oh ci ci dara voilà Euh, yal na yàlla yal na yàlla màggal Sénégal yal yàlla yokk Sénégal yal na yàlla yëkkati Sénégal ci doomi Sénégal yal yàlla may doomi Sénégal jom ah bañ xam ne ñoom ñëpp ñoom moom bokk Sénégal ñu bëgg Sénégal bëgg Sénégal lu mooy bëgg xeer yeeg garab yeeg doj yi mooy mooy bëgg nit Sénégal li nga bëgg ci sa bopp nga bëgg ko sa moroomu sénégalais li ngay ñaan pour sa bopp nga ñaan ko sa moroomu sénégalais boo ko defee bëgg nga Sénégal waye man na bax le ki mom suma len leen ci mom alors ñun duñ non ñun duñ chacun chacun pour soi mais ñun dañu wax ne nit nit ay garabam ah ñun dañu wax ne nit nit mooy garabam gannaaw nit nit moy garabam nak nit war fonko garabam ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. jazakumullahu xayran. li tax man fi Bye. barxama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV